والقلم وما يسطرون defe naa loolu lu ama am solo la ñu ngi la ciy jaajëfal baax ni ñuy defee mbokk yi mooy ñëw ci discours yi war koo tàmbale ci discours bi nga xam ne comité bi ci boppam ñoo koy euh, waajal mu war a jàll ci arab ki nga xam ne moo ko war a jàllal di si di sëriñ Sam Mbàkke sëñ Sam bismillah bu ko defee sëñ Sam itam ñu ko xamul xam ne ci dafay liggéey ci kuréel yaatal mbindum alxuraanul karim nga xam lépp lu jëm ci wàllu bind côté yi ñuy bindee bu ñu bindee not yi moom moo ci liggéey liggéey bu am solo sëriñ sëriñ Sàmbake bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaam ala sayidina wa ala alihi wa sahbihi wa tamkin ayuha alxudur alkiram ashaaba shaxsiyaati diiniya almumasilin li tariqi suufiya فضيلة الشيخ الممثل للخليفة الشيخ محمد منتقى حضرة الوزير الممثل لرئيس الجمهورية حضرة الصادر السفراء والممثل لسلك الدبلوماسي إخواني المعلمين الخالمين لكتاب العزيز سادة الممثلين للمنظمات الإسلامية فضيلة الشيخ الممثل لأسرة سيد مختار خديسي على هذه الحفلة المباركة السيدة المجاهدة في القرآن الكريم أجا بنت تشاو ضيفنا الشريف بلاد النسخة 2023 أيها الحفل الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الإيمان أرجو أن تسمحوا لي بإلقاء نبذة قصيرة عن تاريخ كتابة القرآن الكريم والرسم العثماني موضوع هذه المسابقة waa kitaabul quraanil karim sunna nabawiyya tawqifiya an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam liannahu kaana qad ayna lajna li kitaabati lwaxyi fawra nuzulihi maa al ishraaf wal ishaara ila mawdihi al ayaat fatrati tanzilihi kulli wa kaana alayhi salaatu wa salaam يهث الصحابة على محافظة هذا التراث القيم حتى عدى به الأمر إلى أن قال في حديث رواه سيد الخدري رضي الله عنه من كتب عني سوى القرآن فليمحو وأما اسم عثماني فيعود تاريخ بدايته في خلاف سيدنا عثمان رضي الله عنه حين عين لجنة biriasat zeyd bne saabit li nasxi masahifa wa irsaliha ila al amsal islamiya li hasbi alxilaaf alladi kaan yadibu bayna sufufi almuslimin bi ixtilaafihim fi xiraat alquran alkarim fi ma waqaa baynahu wa bayna sayidna omar wa hisham ibnu hakim fi surat alfurqan li annahu alquran alkarim qad unzila ala sabhati ahrufin wahtimaman bi hada thulathi aljalil wa hirsan ala muhafazati alrasm alosmani qamat almadaaris alqurani fi senegal bi dawrin kabirin fi hada aljanib hatta wasalat ila ma yusharu ilayhi bilbanan ma al ilm anna dawlatana hadi taxtallu makana marmuqa fi majali hifdi alqurani alkarim wa tilawatihi bi musharakati abnaiha fi lmusabaqat alquraniyati duwaliya wa min almusrif an hada altirath alqayyim alladi yatamassal fi hifdi alquran alkarim kamilan maa kitaabati an zahri qalbin bada yatalaasha cheyan fa cheyan li asbaabin idda fi sanawaat alaxira fi Sénégal wa fi am alfayn wa sab'a asar qaama lisharika C3S biraasati bu diiri alaaj sëriñ sekk bi mu bi mubaadara tayiba inxaadan li hada almawqif alxadid wa imaanan bi dawri sharika alijtimaai wa dalika bi inchaai musaabaqa wataniya fi rasmi alqurani alkarim bitaawun ma rabitati rabitati almadaaris alquraniya wa munassixi alaqaalim lilitihaad alwatani li jamiiyaati almadaaris alquraniya في السنغال والمتخصصين في القرآن الكريم وعلومه ومنصوب دارات كله وذلك لوضع الأهداف والمعايير والشروط اللازمة لمسابقة مثل هذه ومن هذه الأهداف أولا المحافظة على هذا التراث القيم والاعتناء به ثانيا نشر خط القرآن الكريم بالرسم العثماني أو القرآني an dari xalbin fi l awsaati taalimiya thalithan tashyiu talaabis wa mutaalimin ala tatbiqi hadi alqawaid bilmusharaka fi lmusabaqa rabian tatwir almadaris wa taxsin awdaa almuallimin walmutaallimin fiha وللمشاركة في هذه المسابقة شروط من بينها حفظ القرآن الكريم كاملا مع كتابة عن ظهر قلب ثانيا إتقان قواعد الرسم العثماني والضبط ثالثا ألا يتجاوز عمر المتسابق أربعين سنة ومنذ بداية المسابقة في عام 2017 في النسخة الأولى لاحظت الشركة إقبالا كبيرا متزايدا للمشاركة لما فيها من إيجابيات بيداغوجية واقتصادية واجتماعية ومن ثمراتها البيداغوجية مشاركة أربعة آلاف wa mia wa thalaat wa xamsiin mutasaabiqan wa taaxul li nisfi nihaa'i miatayni wa thalaat wa xamsiina mutasaabiqan li xifdihim kitaaballaahi taala maa itqaani kitaabatihi an zahri qalbin maa muraa'at qawaa'id ar-rasm wa dabt wa minha aydan tawsii ajsaa quraaniya fi lmadaaris bi xat yadi lmusharikin tashjiican للتلاميذ والمتعلمين ليتمكنوا min altaqlidi biha fi xawaid alxat wa rasm alosmani wa min athari almusabaqa aliqtisadiya an alsharika anfaqat malayin franc CFA litandimiha ala almustawa alwatani منذ النسخة الأولى وتكريم الفائزين وتشجيعهم للمشاركة دائما ومن ثمراتها الاجتماعية إحياء الشخصيات الدينية الذين ضحوا بحياتهم في سبيل تعليم القرآن الكريم ورعاية هذا التراث من المدارس التقليدية الأصيلة وذلك بدعوة هؤلاء ضيفا لتشريف الحفلة الختامية وإلقاء نبذة تاريخية عن حياتهم ليكونوا قدوة للجيل القادم ليتمكنوا من حمل الشعلة والقيام بدورهم في الحقل القرآني وباسم الشركة C3S Serigne Seck Sénégal tad'u lajna al-ilmiya jami'a duwal al-islamiya lil qiyam bi tanzimi musabaqa mithla hadhi musabaqa wataniya fi rasmi al-Qur'an al-karim ala as-sa'id al-watani wa hiya tu'tabar al-ula min naw'iha ala as-sa'id al-watani wa fi kathir min ad-duwal al-islamiya hasba ma tawassala ladayna min ma'lumatin fi maydan al-musabaqat والإخوان الحضور يكونون يعني شاهد على ذلك نقدم الشكر الجزيل لجميع من قاموا بتلبية هذه الدعوة بداية من الممثلين لطريق الصوفية والأئمة والدعاة والمنظمات الإسلامية ووزارة الثقافة ووزارة التربية الوطنية ومفتش الدار إن كان موجودة وسلك الدبلوماسي والمراكز الثقافية وفي النهاية ندعو الله سبحانه وتعالى أن يؤيد هذه الشركة سينسك سنغال التي تنظم هذه المسابقة وجميع اللجان العاملة فيها ومنصوب الدارات وندعو أيضا أن يقبل صيامنا وصيامكم وأن يسود السلام في بلادنا وفي بلاد جميع وفي بلاد المسلمين ببركة القرآن الكريم هذا إن أريد الإصابة ما استطعت وما توفيقي إلا بالله على توكلت وإلي أنيب وآخر دعوانا am alhamdulilahi rabbil alamin assalaamu aleykum baarakallahu fiik sëriñ Sam Mbacké ñu ngi lay jaajëful baax ci exposition bu am solo bi daanaka ñëw na ci histoire mbind alxuraanul karim ak itam lan moo tax c am xalaat bi ak lan mooy jubluwaay bi muy liggéey liggéey bu am solo ci kuréel gi sëriñ Sam ñu ngi lay jaajëfal bu baax. naa dañuy jox rek ki nga xam ne mooy sëriñ Seexuna Mbacké. discours bi sëriñ Sam def ci arabe moom la ñuy defal ci français. au nom de le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, que le salut et la paix soient sur son messager, notre maître Mohammed, sur sa famille et ses compagnons. Le représentant de son éminence, Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, Monsieur le chef de la délégation représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur son Excellence, l'ambassadeur de la Palestine, Messieurs les représentants des familles religieuses et des associations islamiques, Mesdames et Messieurs, les représentants de la famille de Serigne Mokhtar par parrain de cette édition, Madame l'invitée d'honneur, Sorna Adiabinte Mesdames et Messieurs, les finalistes de cette édition, chers invités, permettez-moi de vous faire une brève présentation de l'historique de la transcription du Coran, objet de notre concours Yaatal Mbindum Al-Quran, qui clôture aujourd'hui sa cinquième édition. Comme vous le savez, le Coran est révélé oralement par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, mais son intégralité a été transcrite au vivant du prophète, paix et sur lui, par des copistes qu'il a désignés lui-même. Cette transcription est l'un des moyens les plus efficaces pour la conservation du texte coranique promise par le Tout-Puissant. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu la hafidun dans le passé les écoles coraniques au Sénégal accordaient à la transcription du Coran tout l'intérêt qu'elle mérite et n'attestaient la mémorisation du Coran qu'après sa transcription intégrale de mémoire, conformément aux règles établies. Mais force, force est de constater que depuis plusieurs décennies, cet intérêt est de moins en moins ressenti. C'est pour donner à la, à la transcription du Coran son lustre d'antan que C3S a initié depuis 2017 un concours unique en son genre dénommé Yaatal Mbindum Al Quran des candidats de toutes les contrées du territoire national. la participation de la transcription du Coran la conservation du la calligraphie développée par les Sénégalais au fil du temps et tout l'artisanat qui tourne autour font, par font partie de notre patrimoine culturel, ce qui est une raison de plus qui doit nous porter à développer et à promouvoir cette calligraphie. merci pour votre attention. jaajëf sëñ Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud ci liggéey bu am solo boobu moom itam ni ñu ko waxee rek estuwaaru yaatan bindu alquran bi la di liggéey ci yaatan bindu alquran liggéey bu bu am solo bu jéggi dayoo ñu koy jaajëfal bu baax a baax borom bi tabaaraka taala gën leen sàmm te itam liggéey bi ngeen di liggéeyal alquran ak di gindi jullit yi fu ngeen toll borom bi tabaaraka taala dafa leen ci jàpp ak jàppandal Serigne Mbacké. jërëjëf sëñ eh, Mbacke Sourang jërëjëf eh, kon mbokk yi ci discours yooyu nga xam ne moom lañu doon jàllale benn bi ñu def ko ci araab bi ci des ñu def ko ci français muy discours comité d'organisation bi ni ñu def anta bi ni'mati rabbika bi majnun